Babacar Fall ak li la télévision sur Mika. alors Babacar Fall le président Faye appelle au dialogue avec la presse et le ministre de la communication vient vient de jouer une autre science séquence euh, sur le même sujet pire il occulte le fait euh, que plus de 50% de cette dette fiscale est attribuée aux entreprises publiques de presse subventionnée. Alors, mon ba tey Babacar Fall la dette fiscale révèle des données personnelles sa publication est fortement interdite par la loi exactement alors euh, de même euh, si même siège bi aussi euh, Boubou Nour génn na que ni principay jàkkaarloog ak ay problème du yoon ñu leen di C'est di weer si kanamu que Maurice sénégalais parce que loolu day mettre exactement le groupe euh, si une situation bu inconfortable ak seen partenaires yi nga xam ni. Ah ñoo ak ñu 40 pour TFM amee na ko si dettu ay milliards milliards donc TFM war na fay lu toll si ay milliards milliards te loolu euh, mën na conduire euh, télé bi si bien li nga xam ne que moo échec peut-être souhaité wu ñu ko exactement jàpp na ni waroon nañu ko daal di war a mën a waxtaanee suñu biir. ba di fi bañ a nekk li nga xam ne que langue askan wi la dette fiscale révèle des données personnelles sa application est fortement interdite par la loi est-ce que euh, convenir na exactement à ces propos yi nga xam ni itam moom la fa moom tenir. amoo Fallou man groupe Futur Média wala ci beneen média buy wax après la publication par le ministre ils ñu dit ko non non ñun du loolu la ñu war fay. Ah, mais weddiwuñu ko l'ont ko c'est ce qui est paradoxal. maintenant une synthèse, thèse ont une thèse ils ont confirmé ce que le ministre a dit ou bien ce que le ministre a publié ni que ñoom loolu la ñu fay ci impôt ça vient de le confirmer xama xama ma ñëw xama ma ñëw fallu tamit boo may dagg parfois xama parce que on en a déjà parlé dama ne euh. ñoom Babacar Fall lu ñu wax weddiwuñu ben yoon ni que ministre bi lu mu publier ci ñoom ni amul dañoo dëggal kàddu gi ni que ay xibaar yu wër la groupe GFM loolu la war fay impôt mais ñoom lu ñu ñom lu ñu ŋàññi le fait que ñu publier ko sénégalais xam ñom loolu la ñu bëggul dañuy né sutura maintenant ma ñëw ma ñëw ci sutura bi ma ñëw xam nga yow bo bëggé sutura do dem ci bras de fer avec état bo bëggé sutura ju sutural la doo taxaw fi lu nekk nga yekkee ko état yow presse dañu dem ba presse internationale di fa ñaawal dara dara Sénégal dama né ñom ñoo dem ba l'international di fa ñaawal

presse bi moo ñaawal. Mm. parce que bu fekkee yow da nga am bor da nga am bor bu mel nonu da ngay négocier ak état. nga fay ko nga fay ko wala nga ne ko bal ma ci li ma fay li mais do dem dans dans un bras de fer avec l'état nga ne da ngay organiser sa point de ce journée sans presse état ne ko état ne la d'accord? ñom sa a ñi ñuy organiser ce seen journée sans presse aviser wu ñu état. xanaa kay nga ne état nga nga def ko un mise en demeure. donc ah, non non non yow boo nee état moo juum alors que nga bañ a reconnaître que ni yow presse da ngaa juum <laughs> non mais y a deux poids deux mesures ñoom balaa ñuy décréter une journée sans presse dañoo war a mise en demeure lancer une mise en demeure à l'état du Sénégal ne ñun dans quarante huit heures boo ñu defulee lii wala kii nii dañuy dañuy dem ci kii dañuy dañuy def journée sans presse. joxe ultimatum. ultimatum après nga déglu état état tontu parce que suma né état ñu nekk tay ñu incarné tey régime bi ñom lay né état pour mu leer ci bop sénégalais mais ñom defuñu ko état ñom dañoo xey xey ñu né suba ñu dañuy décréter wala mardi wala lundi dañuy def journée sans sans sans sans presse état me teg di len xol alors yemuñu ci journée sans presse bi dañoo def journée sans presse ba paré Inviter les médias occidentaux ñu bind lu nekk ci Sénégal lu né lañu ñu bind ci Sénégal ci journée sans presse bobo de bu yemoon fii Sénégal sa mu ne mais daño dem ba jéegi wala dem ci média étranger mais média étranger di bind lu ne ci Sénégal. alors d'accord je suis d'accord accord. du loolu la bëgg mu jall jàll na. donc bu jallé bu jallé ñu ñëw léral ci manipulation bi parce que la presse sénégalaise est en train de manipuler à l'opinion nationale et internationale ni que état mo leen togn dama lay wax di déglu ma bu baax li wax dama ne presse Sénégal su ma presse Sénégal je parle des patrons de presse parce que damay bañ a wax nii sa géew su ma presse Sénégal les patrons de presse dañoo nekk di manipuler l'opinion nationale et internationale ni que état moo leen tooñ état moo bëgg a tëj seen signal état moo moo leen xoj ci jaarale ko ci fisc bi moo tax ñu bind ni que le monstre se casse derrière le fisc état moo leen bëgg a tëj seen télé état à mon xëpp ay ay ay ay ay ay ay fisc loolu bind c'est la manipulation maintenant état bu démé ba gis ni que manipulation bi ëpp na lan lay def te alors que presse dayo ba mu am ci manipulation danaka ken mënu ko arrêter état né la d'accord maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va publier le rapport on va d'abord déclassifier le rapport des médias la ils ñu war le fisc loolu ñu war impôt fay impôt dañ déclassifié déclassifier ba bon ba pare ñu l'aval l'autorisation au ministre de la communication mu publier ko ñoom Baba Babacar Fall bu fekkee yéeguñu loolu war nañu ko yegg xamni que le ministre là n'a pas fait une infraction ce sont ses pairs qui lui ont donné cette autorisation de publier ce rapport là la direction des impôts et domaines nañu dem fofu joyantiko ko. Vous croyez que le ministre Aliou Sall, def point de presse, publier le rapport là. Vous croyez que c'est comme ça dans un pays sérieux, vous croyez que c'est comme ça. Sans l'autorisation de, sa hiérarchie. Vous voyez nit bo xamul nga nek ci presse bi nek journaliste bu mag xamo da ngay dem laccé pour nga xam mais do taxaw di len woy d'ailleurs GFM va porter plainte GFM va porter plainte contre qui yow journaliste bu am dayo bobu dina ci futur bu mel di def liggéey bu mel noonu yow xamoo doo dem laajte comme yéen da ngeen tàmm di di manipuler les gens nga ne d'ailleurs on incite à ce que les les patrons de presse d'aller porter plainte l'État du Sénégal wala le régime wala euh, le ministre pour la publication de ce rapport top secret qui n'est pas autorisé par la loi c'est ce qu'il a dit Babacar Fall c'est archi faux mooy ñëw mooy le rapport là ici n'était pas déclassifié le, le, le, ministre là n'allait pas prendre cette autorisation là de publier ce rapport vous croyez que le ministre bi vous croyez que le ministre bi le rapport parce que entre temps on lui a donné l'autorisation de publier ce rapport là parce que manipulation bi mo La presse bi ni manipuler ci côté bu ci sens les patrons de presse ol ke ñu wax sen sen sen au ñu wax les agents ñoo xamante ñoom ñooy sonn ci mbedd bi ba pare ñi dagg seen seen salaire war ko yóbbu ci impôt bi ba pare yóbbu ko ci impôt bi loolu la ñu war a kaas. Mm. loolu la ñu war a kaas non pas di manipuler la convention pourquoi ti grève euh, grève boobu grève euh, journée sans presse bi pourquoi la convention des jeunes reporters respecté wu ko. Oui, je te pose la question, Fallou. Euh, jeune reporter qui respecte Voilà. La presse, voilà. Donc la presse, la presse doit fichir, doit faire Comment vous pouvez organiser une journée sans presse La convention des jeunes reporters, respectez-vous quoi L'on m'a dit la grève. Grève, il faut le. C'est pas fisc. Fisc, bon, on a fait fisc. D'amal, on a failli. nga a sonal nit ñi à longueur de journée di wax quoi franchement <laughs> nañu bàyyi impôt bu ñuy wax impôt dañ koy fay parce que aide à la presse bi yéen ay encaissé ay millions ay millions et de millions ba pare ngeen ne teg ministre bi bu publié wul lee nii ñu bëri duñu xam GFM lu mu war a am lu mu war a jot ci ay ay ay ay ay aide à la presse ñu bëri duñu xam waa des médias lu ñu war a lu ñu dar ñun lu ñu lu ñuy jot ci ay ay aide à la presse ñu bëri duñu am E-Média nous ñu doon am ci aide à la presse euh, donc fofu lolu euh, mo euh, wara Le ministre bi jël na ben décision Arfan moy quarante 45 des fonds d'appui d'aide à la presse en 2023 sont détournés loolu la détournement mu nekk grave les révélations du ministre Aliou Sall alors moom le ministre de la communication si ñëwaat na sur la répartition de ces fonds. ba waral mu si daal di wóorlu ki n'a que moo l'inspection inspection générale d'État pour mu mën enquête. Il y a 45 à la presse Il faut la Il détourné ak Madame,